maa ngi lay fay. waaw non moom aw ma benn jot. mais léegi li ma bëgg rek ñu def ko mooy ma jox leen rendez-vous dimanche au ñu toog waxtaan waxtaan gu yaatu. waaw. dimanche ci ci ngoon. waa lamb. waaw mais après lamb ji. après lamb. après lamb ñu ubbi waxtaan wu yaatoo yaatu. yaa moom lamb ji suuf sama lamb la. sama làmb la. Père Bourkhane li doy na waar. non doyul waar làmb ji sama làmb la. yaay daan Balla Gaye. maay daan kay. yow da nga looy xalaat. ah, ah loolu jarul di xalaat. doomu doomu doomu Double bi wax na moom li muy wax ba pare moom li muy wax nee na làmb ji da koy mbapat. waaw kon kay moom définir na lépp. mais ma sama làmb la. làmb ji moom sama làmb la parce que euh, Balla Gaye amul dara lu mu ciy gagné man maay gagné man maa gagné man daan Balla Gaye moo ma gënal nekk roi des arènes daan Balla Gaye moo ma gënal nekk roi des arènes. bi dafa ko teg mooy ci côté sport laa ko teg tegu ma ko ci mystique bi ci côté sport laa ko teg ndax am nañu capacité boo xam ne daan na Balla loolu moo tax ma jàpp ne tey jii. am naa stratégie bu ko gagné. mais Père Bourkhane Père Bourkhane nga booboo leen Balla Gaye doole ñaari yoon. non ëpp ñu ko doole mais nit ki mun nga am bu daan adversaire loolu kay yàgg nga koo gis. mais ko bu capacité. ñun actuellement am nañu capacité bu gagné combat bii. ñaari doomu mbër la de. ñaari doomu mbër la mais dama ni. c'est par un entraînement intensif que le meilleur ñun en tout cas teg nañu sunu mbër boo xam ni bu jour bi jotee lecture rek lay def après mu jeex.